nek aussi une occasion pour me passer message au chef de l'État, président euh, samedi prochain de Fawara euh, du 7 7 djël balem balé bobu mo né euh, euh woné 7, set dafa bax yiw dafa bax euh lu dafa bax Euh, environnement sa dëkkuwaay nga koy toppatoo kenn du la ko defal yaa ko war a defal sa bopp da ngay nit da bëgg sa bopp euh, soo ñàkkee lépp sax ñàkk alal ñàkk et cetera mais fonkal sa bopp ngor googu euh, loolu moom yaa ko mën a toppatoo sa bopp yaa ko mën a defal sa bopp exemple boobu la bëgg a joxe fekk ci ñeneen ñoo xam ni xëy na ñu ngi ko doon def mais mu nekk loo xam ni ñëpp ñoo ci war a taxaw ñëpp ci war a jàpp kon samedi bi la mu ne ma ma jottali message gogou syndicat yo xamni xamou nañ dama wara a dajeeg ñoom ak iya yo xamni tamit euh dinañu jot message bi ak élèves yo xamni euh samedi 10 heures euh, ñaan leen ñom ñep ñu ñew japp ci liggéey gogou pas liggéeyu président de la république mu nek liggéey pour ce réew liggéey pour ce bop mu nek tamit activité yo xamni dafa wara nek des activités régulières te du Dakar rek Sénégal yëpp la